bi ngeen di topp seen seen bii di xewal gi TV li nag ab dogal la bu tukkee ci monsieur le préfet bu département bu Nioro li ca gën a fes mooy euh, jël na dogal ne marché yi ci département Nioro yëpp daañu xëy di tijji ginnaaw bu juróom-ñaari waxtu jotee ci suba maanaam 7 heures waaye daañu tëj bu ñaari waxtu jotee ci bëccëg di 14 heures incha allahu rabbi yooyu le marché itam ci département bu Nioro moom monsieur le préfet nee na daañ fay faral di amal ak cetal ànd kook njiitu bokk moomeel yi ci département bi yëpp maanaam maire yi euh, set setal gu am solo ba noppi itam daañu famal ay pomp ngir euh, gën fa euh, sàmm ak cet foofee ca marché ya incha allahu rabbi monsieur le préfet di wéy di xamal askan wi ba tey itam ne leen tëj gi nu tëjoon lu muy ci département Nioro day wéyandi ba yàlla wàccee jàmm ci réew mi incha allahu rabbi monsieur le préfet itam ba tey ci dogal yi mu wéy di fàttali ni ginnaaw bu nu ayee tëj luuma yooyee euh, mu ngi tere képp koo xam ne da ngaa jël beneen euh, ndaje bëgg faamal luy niroog jaay ak jënd te duwul marché yi nga xam ne jël na dogal ngir ñu cay xëyee 7h ba 14h. waaye moom ki nga xam ne mooy euh, préfet bu département mu ngi fàttali askan wi ne euh, dogal yooyee mu jël nañu wéy di wanteek moom euh, képp koo xam ne mooy nga ko di nga jàkkaarloog yoon ci kàttanu yàlla sunu borom. si lii moo doon li gën a fës ci xibaar yi ki nekkoon ci réalisation bi Serigne Cheikh Gassama. caméra bi Mouhamed Ndiaye di leen ñaanal jàmm ak tawfeex kàddu gi Babacar Mbow jërë ngeen jëf